salaamaaleykum soo leen ma gisatee xam ne maa ngi biir Thiès ah benn dëkk ñaari gaar fii lay xewee dañuy sànneeku daal def li ñu jaf ah ñoo ngi fii si biir émission doxantu buur Thiès lépp lu lëndëm lépp lu ndox lu ne man ki ne man maa koy génnee ci biir Thiès ah dañuy doxaale ah fëlaale sànneeku def li ñu saf xool biir Thiès li fi lëndëm ak ni jaaykat yi di jaay ma dama leen a bëgg def leen sama biir xool ah maa ngi nii daal sàcc du ko wax ku ñuy tooñ du ko wax maa ngi nii acca sama maan topp ma ñu dox ci biir Thiès xam li fi xew waaw ba tey maa ngi nii ah fëlaale sànneeku doxantu biir Thiès laa wax de damaa ñëw fii ci biir jaaykat yi bàyyiwuma kenn ñiy jaay géej gi ba ci yéet bàyyiwuma kenn damay interroger maire bi nii xool ko laaj ko lan moo xew ci biir Thiès gi parce que damay gis Thiès ñëpp di tëb di jóg damay laaj lan la ak nan ak nan la yaay booy nanga def waaw ñoo ngi fi ñoo ngi sant bi wér. waa dama lay laaj euh, marché bi nan lay doxee ndax jamono ji ñu toll gis nañu policier yaa ngi dóor dàqanteeg yéen ñoo ngi leen di yëkkati di leen def leneen ak leneen ñuy laajte lan moo xew ci marché bi. ah marché gis nga ko nii rek ci ay xat-xat lañ ne ñun daal ñoo ngi nii fi lañ toogoon waaye yëkkati nañ ñu daan nañ yëg kaw dama yaakaar nag loolu lépp li ko war xëy na dañoo bëgg marché bi yaatu ci loolu daal laa gis moo tax ñun daal ñoo ngi toog nii rek di sant. mais yow santiir nga ne daal dañoo gis ne marché bi war a yaatu wala koo yëkkati war nga kaa mën a teg fa mu fa mu nekk. waaw loolu moom loolu moom rafetlu naa ko moom koo yëkkati moom war ngaa mën a am foo ko teg ñu daal bu ñu dimbali woon utal ñu marché boo xamante ne dañ ciy toog mën cee si turlawu ñu loolu dinañu neex torop loolu. waa dañuy def suñu émission mu tudd fël-fëlaale ah sànneeku def li ñu saf léegi ñu lay laaj loo ci xam yow fëlaale sànneekul ba dekkul defal lu la neex. waaw ñun fëlaale rek ñu fëlaale ci géej gi rek def ba mu baax ñun daal loolu lañ ci xam moom. mais gaa ngi dox ba mu neex ah yaay booy est moo ngi ñoo ngi sant de ñoo ngi sant ndax géej moom mooy safal ceeb. ca noonu lay demee saa su man la de maay wax ak yéen damay doxantoog yéen fëlaale sànnee ko def li ma saf ba tey wàcceegu ma de damay dem ci jaaykatu légumes yi aca topp ma ma ñëw am la ma wax ak yéen salaamaaleykum yaay booy yaa ngi ci jàmm. jàmm bu wér a wér a wér noo def ak marché bi ak tooyaay bi. xanaa nag di sant yàlla di julli sang ba ca Medinatul Munawwar rek. neena day sant yalla julli ci yonent bi sang-sang yi geeru geeri han ah yaaram ba des makka waaw mom lay waxal ba tey nga gis la ngay jaay ay legume ta dara xeebul ñuy ta lan lan lan moy lan moy tiafka gi ba tax nga tok ci ak lo ci gis xanaa rek teraanga rek bëgg teraanga ak sutura rek ndax dama yor samay dom yor samay rak yor samay mag yor samay set te kenn ku ci ne buma wacce buma bu ba wacce buma ma man leena jox dara suma liggéeyal leb duma ma lebal ku ma ñaan doo may ku ma abu doo ma abal waaye su ma liggéeyee nag bu soobee yàlla yonent bu ma ci yàlla wërsëgale ma bokk ak samay bokk ak samay sët ak samay goro ndax liggéey dafa war rek sax nag kenn ku ne sax mën ngaa toog ci sa kër waaye liggéey day wàllu jullit moo tax nag li wëli liggéey di wàllu jullit moo tax nu toog fii di liggéey lu metti metti nu muñ lu mu tàng tàng nu muñ lu mu sedd sedd ñu xam ne loolu la yàlla dogal. waa ba tax na nee na lu mu tàng tàng mu muñ lu mu sedd sedd mu muñ wax na lu daw yaram tamit ah ñaq jëriñu dafa neex xëy làmb sa poos génnee dafa neex mais booy àbb saa su ne ñu jéppi la may ma bu dul jeex maam bu moom ñun la acca mooy loolu. waa ñu nekk ci émission fël-fëlaale sànneeku doxantu biir Thiès la émission bi tudd ñuy laajte ndax ni ñuy doxantoo saf na la wala safu la. loolu neex na ma tubaarkàlla macha allah ndaxte soxla boo ko bëggee wax te amoo foo ko waxee day metti boo li nga xam ne nii moom nga bëgg a wax it sant nga ko bëgg a sant te amoo foo ko santee day metti moo tax seen lii ngeen def lu rafet la lu si silvissé la loo xam ne nii loo xam ne day delloo dëkk bi kanam luñ miti miti rek noo ngi toog di muñ rek te xam ne lii seen liggéey la ñiy def lii seen liggéey la daa war a am rek am ndax bu warul am tam du am waaye seen liggéey la sekk ñu leen benn yoon ndaxte bu ma waroon a xëy ñum ni ma doo xëy day metti ci man kon boog ñii di xëy seen wërsëg la ñuy xëyee nuy tam nuy xëy suñu wërsëg la ñuy xëyee daa ne yaa ngi sànneeku de yaa ngi doxantu biir Thiès daal waa tàkkusaan maa la ma ñëw biir Thiès bi di doxantu ah taxaw ak sama yaay booy yi sama bàjjan yi sama tànta yi ànd sama caméraman bu ñaawul bi aca topp ma ma xool ni marché bi doxantoo ba tey ayca ñu dem waa acca ba ma dem jóge naa ci jaaykatu légumes yi jóge ci borom géej te xam nga ne ku ne ceeb bëgg mu saf ku ne di nga def jën ma doxaale rek ah doxantu bi biir Thiès rek ànd waa ñii di jaay jën doxantoog ñoom ànd ak sama xarit bu ñaawul bii di ko laaj waaw nu mu jaay mi neexee. Ah, affaire yi de Issa yi moom ñu ngi bëgg a màggal te jën daa seer kees jën 30 000 la jar nga jënd ko doo am foo ko jaayee te Issa yi dañu war a jënd màggal nag xar boisson lépp te isaan yi xale ya ñu ngi xaar te isaan yi métti trop ci man wax dëgg yàlla tey jënd naa cinq quinze jënd jaaguma ci dara plus de cent soixante quinze mille mais jaaguma ci dara cinquante sax jaaguma ko affaire yi métti daal ñu daal ñaan yàlla dafa ñu xew mais métti na trop isaan sonn nañ moom sonn nañ lool Ah. waaw ba tax na doxantu biir Thiès la tudd gis ngeen dégg ngeen yéen a ko déggandoo nee na day jënd day jënd trente mille à sa kees ah te du ko jaar du ko mën a jaay du mën a génne lan mooy lekk bi léegi ñu koy ñaanal jàmm ak salaam yow kii dafa mel ne Fall la sant de ndax waxu lekk lay wax ba tey màggal gi lépp da ciy def xéewal sëñ bi da ciy def xéewal day baax day dem ay ca ñu dem ba ci acca ba tey maa ngi nii ci émission bi ah doxantu biir Thiès man fépp laay dugg ruq-ruqaat ya baw ma fenn fépp laay dugg maa ngi ni si biir fëgg jaay yi ah lii dafa may neex yére bébé dafa may neex day dundal sama biir xol damay laajte xol ndaw si nan la koy doxanteeg nu muy dem loox ci émission doxantu biir Thiès ah ñoo ngi rek di sant yàlla ñun de xam nga ñu ngi si yére bébé rek béggee rek fël-fëlaale rek xam nga rek ñun waaw nee na moom day fël-fëlaale sànneeku def li ko saf doxantu biir Thiès man maay cappali di bëggal xale bëgg sañ sa def ba mu baax damay gis en général ñiy jaaye fëgg jaay yére bébé dañuy taasu def li leen neex yow loo may indil dañuy taasu def lépp mais tey moom dàqekat yee tax mënuñoo def dara. neen ko ci romb ba ca wujju gaaral la yaa ko tey aca jëlal ñoo ngi nii rek ñun di góob. waaw ba tax si ah, maa ngi fii ci biir fëgg jaay yi bàyyiwuma fenn dugg naa ci jën yi jugee ci légumes yi jugee ci géej yi maa ngi ci biir fëgg jaay yi damay ragal sax ne ah disket yi ñëppay sañ sa si biir fëgg jaay bi jëlal ma xale chon yi. loo xam ci émission fël-fëlaale bi ci biir Thiès ah doxantu biir Thiès bi lañ wax de. lay mënuma wax. waa nee na moom daa ragal caméra ba lépp lay daw te bu duggee ci tànn biir bañu bañu sànnee ko ca na ko daal ma xool soxna si nan lay defalee ak doomam damaa bëgg ku bëgg na bootam. émission bi xanaa neex rek. waaw émission bi chaque jour dama koy seetaan chaque dama koy seetaan émission bi moom neex na moom wax dëgg fa yàlla. waaw doxantu biir Thiès la ñu wax ñuy xool ba xam dinañ fël-fëlaale sànnee ko def li ñu saf. lu leen neex def leen. Ah. ba kenn laal leen. Ah, <laughs> ma digaale koog ñoom. ëpp na ba fex na foofu laa ko naan capp ànd ak yéen doxantu ba tey rek ci biir Thiès gi. waa ba tax na maa ngi nii sàcc du ko wax ku ñuy tooñ du ko wax saa su ne dama koy wax maa ngi nii fang dang ci biir marché bi ànd ak seen émission ah doxantu biir Thiès ci biir tàkkusaan maa bi rek fëlaale ànd ak sama xarit bu ñaawul bii di jaay li nga xam ne moom la xale yi di wër sava naturel dafa xew gisoo moo ma tegal bii sànneekul ma def li ma saf sama xarit ma di la laaj lan mooy njaay ak nan nga gisee njaay mi fii ci kaw Thiès. Ah, quoi léegi dinañ koy wanteer waaye duñ koy wanteer rek mil la ñuy fay te 6000 la ñuy jaayee marché bi fi mu ne moom yéeme na moom xamatut benn njaay. waa ñu gis ne marché bi yéeme na torop loolu kenn weranteetu ko ñu gis ne yëkkati nañ ñëpp ba foo taxaw sànni sa bët mën a gis marché leen ñuy laajte tamit euh, greffage yi pourquoi boo leen waxee 6000 ñu naan la 4000. ah loolu de jaaxal na xam naa rek dëkk bi moo neexut quoi dëkk bi moo amul xaalis. waaw ba tax na moom moo tontul boppam nee na dëkk bi moo neexul comme dëkk bi moo neexul lépp dañ koy def à bas âge ah, ñuy def suñu émission doxantu biir Thiès loo ci xam ak loo ko gisee. ah kontaan naa ci yéen li ngeen def moom rafet na trop bu baax a baax kontaan naa ci yow. waa moom daa mel ni séeréer la ndax kersa gee bëri nañ ko bàyyi sànnee ko rek dem def lu ñu saf fëlaale aca na ko dal mu saf ñu def lu ñu neex ci biir Thiès kenn du ñu tere aca ñu dem ayca maa ngi nii doxantu biir Thiès ba tey la ñu wax de maa ngi nii sànnee ko fëlaale ndaje ki nga xamante ne kenn doo ko naataable biir Thiès ah moom moo génnee fëlaale ca na ko dem yow sama xarit bu ñaawul bii def teint noiram ma seen la ci biir marché bi ngay fëlaale di def ay tissu yu jekk man maa bëgg sax mu sañseel ma tey ma xam ne waa Thiès info moom moo ma sañseel ayca loo xam ci émission asalaamaaleykum maa leen di nuyu ñëpp fu ci nekk sa tur sa sant émission bi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan ndaxte lii yombul quoi li ngeen def nii dafa am solo ci marché bi waaw yéen moom vraiment amuñu seen fay quoi ñun nag ñu baax lii la ñuy doxantu waaw fët fëlaale rek sànnee ko def lu la saf wóor na yàlla ñun nag bëgg nañ ko ñu jàppale ci marché bi ndax sonn nañ sonn nañ wax dëgg yàlla heure bu ñu xëyee nit ñi dañuy wut fu ñu laal ambulance yi sonn nañ foo ba tax na nee na marché bi foo taxaw ñu ne la jóge fa man dama koy gis dóorkatu waar la bu guddee mu xàll yoonam sàll ba mu neex taxaw dem liggéey ba bëccëg ma seen ko fii dama koo nawloo parce que nee nañu nga am soxla làmb sa poos génnee dafa neex loolu day baax nee na marché bi fu ñu lal ñu yëkkati leen lan moo waral lool. ah waa mais ñoom waa maire bi rek waa maire bi rek ndaxte ñoom dañoo bëgg a jëlee ci marché bi ñun ambulant ñun liggéeykat yi fii te nit moom boo leen bëggee boo leen bëggee jële fenn faa nga wutale fenn foo xam ni boo liggéeykat nañ fa mën a nekk nga xam ne fii kat fa lañ posé wu. waaw ba tax na dama koy laaj leen lu am solo ndax lii ñu def nii man gis naa ne amul inconvénient parce que bu ñëpp jàllee ñëpp dox lii dafa neex dafa rafet mais tamit est que rafetul tamit ñoom ñi leen yëkkati ñu wutal leen euh, place teg leen fa ngeen di liggéey. waaw waaw ñun moom loolu lañ bëgg wax dëgg yàlla bañuñu ko ndaxte nit moom ah nit ay nit ay amalamaan bu nekkee ci marché. nga ñëw bëgg leen faa jëlee war nga leen a wutal kat benn marché boo xam ni kat boo leen fa jël boo leen jëlee fii yóbbu ñun moom loolu la ñuy wut. waa taalibe sëñ Babacar Si bi laa doon waxal ba kareeg dara maan aram loo Kumba Caam bañ penda ak Fatim du waalo Sambaay naar ji moom lu mu amul lu ne wala lu mu ñàkk lu ne rek ah dara du ko ko xañ day dem ca kaw ca kanam ndax borom bone yaakaar aca ñu dem. waa ba tax na dama doon doxantu biir Thiès sànneeku fu laale def li ma saf taseeg samay mbokki artiste. waaw nee nañ ñoom indi lu bees tàq. ñu yëkkati leen ci biir a la ñambax ñambax. waaw man ñambax ñambax xale bi xew jamono ku ma xamul waaw am na ñu naan saf am na ñu naan ñam ñam am na ñu naan jox la kon nag xam na ni marché bu mag dama ko moom waaye nag boo gisee lii xar suñu côté ba tax euh, ñi dàqante police yi daa daa daa nekk côté waaw te li waral lii xam nañ ko xëy na commerçant yi lii am laay def kon nag xam na ni du yoon. waaw commerce ambulant yi day croiser ah, day croiser commerçant ba tax na tamit li may wax saa su ne munoo gis ki lal ci diggante bi am ki yor di fayee ko weer bu dee di fay juuti bi yow doo fay nga ñëw lal ci kanamam ndax loolu yanu na maanaa waaw mais bu ñu wutaloon fu ñu nekk yaakaar naan du lal ci wetu kenn fii ko sañee ko yaan sa yëf bopp nga yam mais buy gisee ñuy euh, ñëw ci borom place di falal ñàkk pexe la waa tax na dëgg la koo yëkkati ku ne war nga kaa sànni fa mu toog boo ma nee ciix war nga a teg nga teg ma ci mbedd wala nga teg nga ne fii la ay ñu dem actuelle. waaw waaw waaw ñu ngi lay sant di la gërëm soxna si waaw man maay Assane Dani wàññi booy wàññi son bi wàññi son bi ma ma mais lii neexu sama gars yi quoi du ñëw nga naan gaañ ma puusal ma jàll marché dëgg noonu lay mën a dem maa marché wéet ni loolu kontaanu si quoi waaw ba tax na nee moom marché balaa mu koy neex faaw muy buuxante naan puusal ma jàll sa may laal Sénégal ba tax na loo xam ci émission bi ñuy def nii muy émission tuddee ko doxantu biir Thiès ñu fekk la nga naan zëlzël ñuy laajte lu xew lu ak lu ko waral. Eh, man damaa kontaan si lii barki Serigne Saliou sa kaw kanam waaw man damay gér nag mais sama doomu day ñamax ñamax yooyu moo gën a aay. waaw loo leen indil waa Thiès info. waa Thiès info xoolal ci kaw ci kanam barki Serigne Saliou xam jox sa waay mu def ambiance loo xam ci waa Thiès info. waaw ànd ñëpp ci ambiance te ñun jusqu'à vous ñu ne Thiès ba géej fer xam nga li Thiès fa jaral Thiès fa jaral nañu bàyyi ndey bàyyi bàyyi te lu ñu am nekk moom ci marché ba kon Thiès fa jaral bari na dëgg la moom nee na Thiès Info jaral na ko bàyyi yaay bàyyi bàyyi ba tax na wax na dëgg ah mburu mu tàng bi fii lay xoyam xoyame Maka Samba man maa la koy sàccal ba mu neex mburu mi fii lay xoyam xoyame biir Thiès Info kenn du moom aca ñu dem aca waa kii moom dootuma ko laaj du ma ko présenté du ma ko def dara dama koy laaj rek soirée démb bi nu mujjee soir bi neex na trop ñun moom xam nga ni lu rafet rek la ñuy def te tey mooy gën a raw sax waaw. waaw ñuy def émission doxantu biir Thiès moom timam génnee fëlaale sànnee ko def li ko saf ma imité ko ci moom ah ñu lay wax loo xam ci Pape mbay xale boobu noonu. waaw xale bi moo xew ci jamono ñu ànd ak moom di liggéey ak moom xalaat ni maa ñoom fu sori sori sori lañ yaakaar ëllëg pour ñu yegg fa ma koy jàppale. muy xale bu baax xale bu am jom xale bu neex a jàppale. waaw moom nee na Pambay dafa baax te yaa baax soo ko déggee daa fekk jàpp ca mbagg ya dafa baax ah moom mii kenn gënu ko kenn du moom parce que dañ koy gis saasu ne lu Pambay bëgg soo ba jant soo rek moo nga ca waaw dañ koy ñaanal di ñaanaleel Pambay ca kaw ca kanam ñu lay laaj si loo xam si suñu émission bi muy doxantu biir Thiès. lu rafet la ndax damaa kontaan ko bi fi ngeen ma fekk muy loolu laay liggéey muy yëngu muy liggéey mairie. ci loolu laay liggéey su ma paree damay nekkaat ci leneen ay sant rek. waaw ba tax na moom yàppaasu métier lay wax nee na moom bu yëngoo ci lii bu jógatee demaat ci leneen moom daal ñaan lay bañ dama koo bett fekk fa mu solee sagar wax ak moom mee guddi boo ko fekkee ci biir milliam nday sañ sa def lu ko neex fulaale sànnee ko ah xale bi kenn dootu ko présenté ci biir Thiès la bokk artiste la. aca looy ñun daal ñoo moom kees. ëpp na nee na ñoo moom Thiès kon nañ doxantu def lu ñu saf ñun la waa Thiès ñu dem ba tax dama doon doxantu fëlaale gis ngeen ma fu ne jugee naa ci jaaykatu jën yi jugee ci jaaykatu légumes yi dem ci jaaykatu yére yi romb artistes yi wax ak ñoom damay ñëw ci borom pose yi ndax ñooy samay xarit te ñoom laay wër xam nga ne kii daan dooleem pause amul xaalis dara amul xaalis waaye damaa ñëw sànneeku ànd ak ñoom ci biir doxantu biir Thiès wax ak ñoom ay ca ci loone sëñ bi. sant yàlla bu baax a baax. waaw damaa ñëw gis ñu yëkkati leen ma gisoon ne yëpp place la am loo leen xam ci lool. ah wax dëgg yàlla toog yàlla rek kese xam man ba tax na nee na day toog xaar yàlla ginnaaw day toog xaar yàlla damay naataange tamit xoolaat ndax yàlla ku ko xaar ku ne mu fekk si lañ loo xam sëñ bi ci émission doxantu biir Thiès. waaw yaa ma gën a xam ñun moom xoolal bu fekkee ñun ñun rek xam nga ñun moom ñooy door waar quoi mais xam nga rek ñu def gaa yi nii tamit moo xaw a métti boo leen fi jëlee nii war nga leen mën a yóbbu feneen moo job bi ko quoi waaye maa ngi jégalu. waaw ba tax na nee na moom lii mooy job bi boo yëkkatee nit da nga am foo koy teg te wax na dëgg koo yëkkati ku ne war nga kaa mën a teg ñoo ngi lay seetaan ñoo ngi lay xool te yaakaar naa ni solution dina am. dootu ko présenté lu am sama kanam ak lu wàcc lu ne rek moom moo ko ci def dama koy présenté Thiat ci loo ne. waaw nice lépp jaam ah nice sant yàlla bu alhamdulilah. sant waaw Thiat ñu gis ne dañ leen a yëkkati woon fii te yow ku ne xam na la ku la xamee si place xamee liggéey jaamu yàlla xam ma lay laaj loo ci xam. oui affaire xam nga rek yaa ma gën a comprendre doy na mais tamit euh, comme que noonu leen ko gisee ñoom ama loxo moom lu si jóge la ci des moo ko xam nga rek waaw gars yi moom liggéey jaamu yàlla xam nga loolu lañ xam xama xamuñu la neen quoi tamit noonu la demee ko xam nga aar bi nii mooy loolu quoi foo nekk nii pour def ko rek mooy loolu noonu parce que Serigne Touba kese la tax na yàlla baax na laa koy wax te lépp xëyul sotti léppay nem caat ca kaw ca kanam yow kenn dootu la présenté ci biir Thiès ah xale yu jigéen yu fi cappale jigéen yu rafet yu jekk yëpp caata ko waral ay ca ñu dem ba tey maa ngi seen émission doxantu biir Thiès aca ñu ba tey te laa leen indi loon muy doxantu biir Thiès seen biir seen émission di ko defee ci biir Thiès info seen xarit Fatou Kiné Mbodj di leen ko defal Thiès la ñu wax benn dëkk ñaar ñaari gar plus ay rapport laay wax yu fat bintu yi ah ken dotu ko natable dama lay fek sa bir keur wax ak yaw fek la sa bir néeg wax ak yaw fek la sa bir diwan wax ak yaw dina interroger borom jaay katu jeni bawuma ma leen borom jaay katu yi bàyyiwuma borom jaay katu yere ndax nakar mom fep lay gene te gis ngeen ni ñu def bir marché bir ties li rek len indi lon pour tay Aïcha di nuyu sama kameraman bu ñaawul bi di len wax ba benen yoon Aïcha ñu dem